représenté waale suñu benn association nga xam ne président baa ngi nii maay Aliou Ndiaye tey dafa bëri ay volets dañu bëri lu bëri lu ñuy mébét mais nag jigéen ñi am nañ ci wàllu bu am importance moo tax tey jii ñu ñëw fii di fekkee jigéen ñi di ko présenté waale ñu wax ñu mën cee adhéré ku ci bëgg a nag tey jii da ngay joxe sa ñu bind ko bu ëllëgee bu carte bi ñëwee nga mën a def carte santé premier objectif bi éducation deuxième objectif bi ci euh, sécurité ndax dëkk bi léegi bari na insécurité loolu daal ak volet yooyu daal ci lañ bëgg a loolu moo ko gën a tax a am nañ ay yii formatrice yoo xam ne mën nañu leen a former ci affaire defar céréales transformation fruits liggéeyu jigéen bu bëri ay defar saabu defar eau de javel loo xam ne ñu jigéen dañ koy soxla ci kër yi di soxla loo mën a jëfandikoo nga xam ne dinañ dem ba mën koo defaral seen di ko di ko soxla agriculture sax bokk na ci agriculture à yi ñuy defal jigéen ñi xam ngeen nawet bi légume bu baax boo koy bay sa kër mën ngaa am loo xam ne dañ ko mën a def ci sa ndax te sell lay doon ndax bio lay doon du am am dara loolu yëpp dañ ciy yëngu bu sama yàlla. ñoom ñu ndax tamit loo gis ne début bu ne day métti début bu ne day métti waaye nag am nañ yaakaar daal ne moom dinañ am ñu jàppale ñu jël suñu déem def ci ñuy jël daxaaram def ci ñu boole boolee rek lépp dina mën a jëm kanam ñoom ñoom dañ leen di woo kaw ñu jàppale ñu rek ñu jàppale ñu rek leen ñu toog jàpp réew bu demee kanam ñëpp ay boo découragé rek bu dama leen di ñaan ñun ñëpp ñu dellu si waat bu demoon sax dafa nekk amoo ko lu nekk dellu si bu gàcce bu ci ñu si waat bu gàcce bu ñëw ñibbi si waat Pikine ñu ñëwaat ñun ñëpp ñu àndandoo bokkandoo xàccandoo dóorandoo defar suñu Sénégal ndax senegal chinois bi du ñëw defaral ñu ko français bi du ñëw defaral ñu ko américain bi du ñëw defaral ñu ko ñun mën a defaral suñu loolu rek laa leen di digal nañ ñibbi si dem wuti amoo ñibbi si waat Pikine ñu ñëwaat rek boole suñu lépp defar quant jigéen ñi nag noot leen noot moom yàgg na yàgg na trop metti na waaye nag dañuy jëfe ndigal tey tey masla tey waxtaan dànk rek muy mi ngi wàññiku nag moom ñu wàññi bu baax ndax léegi gis nañu jigéen ñi ñu ngi liggéey di ñëw di jàppale borom kër yi ci kër gi ndax jigéen lu mu am ci këram la koy yóbbu bu ko indee ci këram tamit ci njabootam la koy def boo amee kaye bu la sunu doom laajee kaye joxoo ko ne yaay bu demee ci yaayam yaayam jox bu papa ne aw mun sama yaay ji du seetaan doomam fu mu mën a dem di ko lebi sax dina ko lebi ñëw jox doomam mu dem jàngi kon jigéen lu mu am rek ci kër gi la ko indiwaat luy politique duñ ko laal duñ ko jege ak politique mun dañoo jóg pour defaral jigéen ñi jàppale leen ñu am autonomisation économique ñu autonome bañ a dépendre ci kenn di liggéey di liggéey seeni faj seen i soxla te duñ dépendre ci kenn looloo ñu tax a jóg mais ak politique la ñu waxaat ko ak politique macha allah noonu di sant di mhm. leen masaw li coono yi mhm. bis bii li ñu yëg rek mooy li yëg bés bu mooy solo si nga xam ne jigéen daf koo am ci société parce que bu tey bii la jigéen am solo dañoo am solo ba suñu borom def tuddee ñu saar mu sóoratu yaasin kon xam nga jigéen am na solo te suñu sang bu tedd ba ca Medina jigéen na ko doon dalal jigéen na ko doon saral mu suñu yaay Adja kon jigéen yàgg naa am solo

gerte gi ngay wax pour gojj googu ngay wax gerte li ci nekk ci ngëneel bëri na saabu bi nit wax saabu mën naa génne ci gerte diwlin day génne ci gerte rakkal day génne ci gerte ak yeneen ak yeneen ak yeneen su ko defee loolu kon suñu amee kuñ ci accompagner. na ñëw nit yi macha allah. Mm-hmm. ñuy waxtaan ñu doon waxtaan ak ñoom transformation comme niñ koy faral di waxee bay euh, ñu leen doon wax li nga xamante ne mooy solos formation am sa formation am sa liggéeyu bopp jële ca euh, tool ya ñëw transformé sa bopp au lieu ngay jënd ay produits loolu lañu leen doon ñëw di leen wax domaine yu bëri nag ci mel ni ay spécial lu ci mel ne ay jus concentré wala sirop ak savon ak eau de javel loolu lañ doon noonu wax parce que chaque jour dañuy gis ne ñun femmes yi loolu yëpp ñun ñoo koy jënd waaw ñun ñëpp mën nañ ko defaral suñu bopp parce que mën nañ defar savon nga dem ci marché bi dem jënd ñu koy defar lépp mi ngi ci marché bi nga dem jënd ci fi nga xam procédure bi nga dem jënd ñu ñëw transformé sa gerte gi dañ koy bay dem jaayi ñu ko ñu transformé mu ñëw jaayaat ñu ko te mun nañ ko defaraat si loolu yëpp nag moo leen di gën a sant sant yàlla bu baax ci gis bi nga xamante ne bii voilà teewee nañu ko. dañoo xam ne ni ko alxuraan bi waxee jigéen bu baaxee lépp baax waaye bu defee safaan ba lépp def safaan loolu moo waral association bi taxawaay bi moom mënta weesu taxaw lu mu fas taxaw rek moo ko tax soxna yi mën am xëy am xëy gi programme incha allah lépp dana am te ñi programme yoo xamante ne bii am nañ mébét bu mag a mag a mag yoo xamante ne bii buñ ci jaaree danañ tege ci aw yoon danañ amul nekk seen yoon lii lañ bëgg fas yéene a tàmbalee bëgguñoo yem ci ndaxte nekkul association boo xamante ne bii ak gox la wala mu nekk association boo xam ne ak kàcce la association nationale la association internationale la fas yéene nañoo tàllal loxo ñi ca biti ñu jàpp lañu ñu jàpp lañu ñu fi nekk association bi ba mu juddoo yàggul xam naa ne ci weer la toll waaye yàlla ñu ngi koy suturaal ba booba ba léegi mi ngi continué am di ni ko waree ñu di ko wax KSF di kër Serigne Fall koy jàppale ci ay activité

aaya bi dafa wax ne inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin ma bi anfusihim sunu boroom subhanahu tabaraka wa taala dafa wax ne du ma soppi aw nit fekk ñu jéem jéem a soppeeku te gis nañ ne bu ñu jógee jéem a soppeeku sunu boroom mën nañoo dimbale te xéwale ngi fi capacité am man ma ak fi organisation moo des bu organisé woo rek waaw question boo xamante ne bii xam naa ne li tax li téyeegum mbooloo mi ci la question bi nga xam ne ki nga njëkk di waxal liñ lay njëkk a wax mooy politique bi nañ ci baax ci loolu nag liñ leen faral di wax mooy apolitique bi ku gëm ne apolitique la apolitique la ku faral di wax mbooloo mi tamit nit dana ñëw ne la loo may jàppalee jox ma loo may jox am na ay groupement yu bari da ngay dem nga waxtaan ak ñoom li la njëkk a wax loo ñuy jox loo ñuy financé li ma leen njëkk a wax mooy tey ma may la dara suba ma may la dara gannaaw suba boo ñëwee damay gàtt loolu amul sens. li am sens mooy ñu teg ci yoon woo xamante ne bi bu liggéey da nga mën a demal sa bopp loolu moo ëpp njariñ politique. politique nag bonut dañuy jaawale ñëpp dañoo politique. sallallahu alayhi wa sallam da doon politique waxuma da doon politique waaye ay politique la yore woon ak njabootam ñun ñii suñu kër yii. képp koo xam ni mënoo politique doo yor sa kër kër boo fi gis bu dox bu ne borom kër ga daa mën a politique politique bi ñuy wax bu baax ak bu baaxul lañ ràññeeku. comme ñoo la ko wax ci tàmbali bi ci laa lay tonte ne benn gox moo ko tax a jug wala ñaari gox dañoo wax ne association nationale et internationale kay wax nationale et internationale nag dana jéggi ay jox ay gox wàllu ministère yooyu ngay wax nag. danañ ci dem suñu kéemtulaay kàttan di leen lu ci nekk la fay àqi askan wi ñu xamal ko ne askan wi am na lu mu am àq la askan wi soxla ko bëgg nañ askan wi jot ci loolu yi fas yéene nañ ko. xanaa góor ñëpp su séeru la. te bu soobee yàlla ah, dana soxla. mooy di sant bu baax a baax. di yombut guddi na waaye li muy guddi kii bi toog di xaar. politique téyewu leen fi dara téyewu leen parce que politique téyewu leen fi dara téyewu leen fi mën ngaa luye lu ne waaye ay nit kenn mënu leen luye. waaw luye 16 nga luye base waaye luye nit yombul loolu nag ñu ngi ciy sant fii nga xamante ne bii moom moo leen jiite di soxla mbir mi di rafetlu taxawaay bu baax a baax. moom incha allahu liñ ci dégg te xam ko rek danañ ci wax suñu gàncax gi